machallah mbima mina mine keewi caɗele mm-hmm. caɗele ɗe ne keewi saabu minen to min jippino minen min gojjanama on dammiri jeeɗiɗi sette kar mu sacco lañ ko sacci fi fi to rompoye mbi kari yeeyaka nin ɗo caɗele tampere wona ndiyam mina idi fof mina hay dok hen min tampin mm-hmm. nani de idi fof ndiyam hay ndiyam do min jarni kar ala yen legi nu ngeen def ba nu ngeen def ba yobbu xari nde yobbi yo kari joni ko woto yimin lartoy to min jettoy wota wota 250 wala 300000 kan, affaire caɗele pop torop dal eh, mettina quoi mettina mettina torop bon torop torop do ga kayi kam yakana torop kari kam yakkan torop yakkan tabo gooƴi banti koti han nyami wuron ngonta ton keccol bono carte en fuf yakkan torop merci beaucoup merci waaw ah, harbi kam mo ngi fi harbi kam di eh, jeekol man eh, saakaar lay indi woon fi mais six rek lay jar beneen bi mu ngi ni am na fii eh, fukk ak ak ñeent xar waaw maa ngi fi xar bi kam mu ngi fi te xar bi dafa seer dafa seer foot fii amul eh, bénéfice amul dara day coon rek day sonn day sonna ci man waaw tay nu ngeen def pour dundal xar yi tay ginaaw xar yi dess fi ni nii ñu dundu ñaata fan ngeen fi nara a man euh, amna fi euh 10 fan. waaw 10 fan. waaw wer bi bo commencé rek may sour première sour ma nga ñew waaw. loolu mo tax affaire bi amna féré yu bari amna féré yu bari té xar yi jarul waaw lolu may programme mais gis nañ ñoo xam ne fi mu ne ñu ngi wanteer seen xari yi pour ñibbi. waaw ñu ngi wanteer tuuti pour euh, nga am fii nga paas nga nga ñibbiwaat nga dellool bi xar bi. waaye daal tabaski bi ren neexul ci yéen. xar bi tabaski neexul lay neexul. macha allah. waaw bisimilah rahmaani rahim waaw nuyu bi affaire bi. aduna nii rek la mën a deme xam nga daaw affaire bi mu ngi manqué. ren kadi affaire bi noon laamu bi deful dara jàppale li mu mën ay pul yi am na ñu mu koy walla yi liggéey jur yi am na lu mu koy jënbale saba génne na kaalis lebe nit yi ay indi kar yi walla ay kaalis yooyu wana léegi kar yi lu mu dese ren dafa ëpp dañu ñaan buur yi rek ñu ngi sant yàlla rek dañu koy ñaanal moom ne yàlla ni yàlla jàppale ko léegi noonu ñu dimbal nit yi oto yi ñu yóbbu kar yi taw fere bi amul xam jur yi bu mu ñëw ni lu waa soto yi defa seer fere yi defa feer te Dakar soo ñëwee du mën a sàmm te am na ñu nekk fi léegi jaayul hay lu mu mën a fay transport dañu bugg kadi toog fii ay quelque weer wala ay comme ba haaraaneen tawa amul hen benn jafe-jafe ñu toog fii ci dëkk bi ñu mën a lijjante ñu mën a jaay ay ndànk-ndànk saba dello ni kar yi amul paas amul li ko def métti te kar yoo bari yow soo ko delloo day am ay problème mais ministre bi daal mu dimbali leen pour oto yu ngeen yóbboo xar yi. oto yóbbu jur yi. tawakat yi euh, amul problème ak compte. dimbalkat yi ñu war a des fi ba ñu lijjanti taw amul peke yi lu mu war a yóbbu ba ñu mën a jaay seen jur am lu mu yóbbu dépasse wala yooyu sax soo dellee fi jur yi du mën a jaay dara jur yu mu war a ñibbiwaat dafa bëri torop torop doo mën a jaay dara. mais problème bi lan la nit ñi ñoo amul xaalis wala jur gi moo bari jur ji moo bari nit yi moom dañu teel a jënd xam nga dañu déggoo ci affaire corona bi bu mu ñëwee. kar yi du may dana manqué frontière yi mu ngi ti andi gars yi ñu ngi jënd ndànk-ndànk ñu ngi jënd ndànk-ndànk kadi jur yi moom dafa bari xam nga daaw soo gisee affaire yi manqué sax eh, sàmm yi amul moyen tawi affaire bi tawagul dañu manga dañu manga dañu dem ci àll bi amul moyen ñëw tabaski ren noonu affaire bi teel na ñëw sàmm bi kadi am na moyen ñëw yëpp yu bari ñëw na loolu moo tax jur yi moom nag kilifa gu nii est-ce que duñu jaay xar par kilo maanaam xar bu nekk soixante kilos ñu peese ko jaay ko par kilo est que loolu gën leen arrangé. ala loolu baaxul ci ñu liggéey ci jur. jur soo demee ba ñu kamante lu jaay ci affaire par kilo soo ko jëndee doo ci am dara sabu ku la mën a jaay doo la wàccal doo am dara gisoo léegi boo suyu seeraas yi soo jëndee ay foora jënd bett nay bi ay par kilo yu bari moo leen yàqal seen xaalis loolu kam baaxul. waaw léegi ñi leboon xaalis tey jënd ay xar nii pour liggéey ci tey pert naka la ñuy def ak borom. ah kanaan nakante rek ñu mayaat ko beneen dele yokkaat dele bi ñu mën a liggéey bu dul loolu kam day métti sabakar yi kam fi mu ni nii mënoo ko jaay nii wéykat yi pert yi dafa bari il faut que ñu mën a nakante ay borom kaalis yi ñu mayaat ko délai.